221 Diaspora 221 pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée tapez www.diaspora221.tv et optez pour des informations fiables et vérifiées. nekk élu dans la commune de Djiddah Thiaroye Kao conseiller du président Mamadou Gueye directeur général des domaines. sababu ndaje bi comme ni ñu ko xamee rek dañu nekk ci benn weer boo xamante ni weeru koor la mu nekk période bu xaw a difficile. ci contexte bi nu mu tëddee ndax ku ne xam na ni koor gi moom denrée yu bëri day xaw a raar ak yu demee noonu nit ñi tamit seen activité dafay xaw a wàññeeku monsieur Mamadou Gueye directeur de des domaines maire de Djiddah Thiaroye Kaw ni tey dafay honorer les responsables les populations de la du département de Pikine toutes les communes yi nga xamante ni ñu ngi ci biir département bi les douze communes mu décider ku ci nekk mu apporter la benn soutien ci ceeb ak suukar ak dëwlin pour ñu dimbalee ko ménage yi mu accompagner leen ci seen weer wu sell wi. xayma bi xayma bi ay tonnes yu bari la. bëgguñu dugg ci détails yi mais tonnes yu bari la. ci quantité diwlin yi bari na. tonne sucre yi bari na tonne ceeb yi bari na. dañu indi à titre symbolique rek li nga xamante ni tey moom la ñuy joxe fii mais yi li ci des daañu jël oto. yàpp ko ci commune bu ci nekk ñu fekk fa responsable ya fa nekk ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko yeyoo ñu teg ko seen loxo. individuellement ngeen koy séddale maanaam par njël la wala par commune la suñu xamee ni séddale euh, séddale waaw ku nekk xam na ni daanu dajul suuf mais lu rafet kenn du ko xeeb lu mu néew néew commune bu ñu dugg danañ fexe ba ña ca ëpp mën cee jariñu ndax nag mën nañoo wax ni tey. même le président du Sénégal mi yor budget Sénégal xaj na mënul jox ñëpp dund tey kon moom en tant que directeur des des domaine bu jëlee initiative boobu ci liggéey bi nga xamante ne mu ngi ciy am accompagner son excellence le président Macky ci ci côté social bi ak fit dëkk bi toll xam ne nit ñi soxla nañ ko kon moom bu ñëwee ci lancé boobu pour jàppale famille yi ci ceeb ak diwlin ak suukar ci période bi dafay day nekk lu ñu soxla ci département bi loolu mooy sabab bi te noonu la ko daan defee aussi mu nekk nit ko social at mu jot noonu la ko daan defee def na ko ren nii déwén incha allahu rabbi bëgg nañ ko tollanti yokkaat ko mu gën a tee bari bu ñu sañoon Sénégal yëpp day daj mais comme bay bay ci sawewu tànk dañuy dep dañuy déparé rek ci département de Pikine daal di gën a yaatal muy gën dem ñu leen di sant leen yeneen pexe jéem ko def gënul année ñu dajale fii askan mm, waaw merci beaucoup euh, lii dafa nekk loo xamante ni dañ koy def à titre moom ci social la dëkk ñi fi nekk tamit ñëwuñu di ñaan si ñàkk ñu li leen di jox ay gor lañu yoo xamante ni dañu am ay responsable yoo xamante ni dañu am pour soutenir la politique du président Macky Sall ci accompagner le populations donte mën nañ ko ñu sentir ni seen loxo ak loxo njiitu réew mi ak loxo la directeur de des des domaines mu ngi teg mu ngi mu ngi tegu ci askan wi pour accompagner leen mais du lu ñu ñàkk du nit ñu xiif acte bu rafet la boo xamante ni daf ñu war dafa war le président Macky Sall war le directeur des des domaines moo tax mu di ko def kon acte boobu mënuñu lu dul saluer ko parce que ku ci nekk tey di ko fi jël si am na ñoo xamante ni ñu ngi liggéeyal seen bopp ñu ngi am am nañ ceeb am nañ diwlin am na ñoo xam ne tamit jafe na leen. mais daw dangay def rek li nga xamante ni noonu la parce que yàlla mi ñu sàkk mën a jox ku nekk sax joxul ñëpp dafa am ñu mu jox lu bari am jom ñu mu jox tuuti am ñu mu xañ lépp kon ñun lii le directeur des domaines mën a def rek moom mooy fexe ba kenn ku ci nekk rek lu ci ci barke président Macky Sall aussi comme on dit. je vous remercie est-ce que du appel du pied pour waajal 2024. loolu du appel du pied xam nga lii buñ ko dugal sax ci cadre politique. ça n'a rien à avec la politique ñun terrain politique bi xam nañ ko mën nañ ko ni ñu def ba gagné ba le président Macky Sall gagné en 2019 am majorité sénégalais ñu wóolu ko foofu la ñu jaaraat bu ñu nangulee ñun suñu candidature bi nga xamante ni ñu ngi ko koy laaj muy suñu laaj ñun ñëpp au niveau de Sénégal ndax liggéey bu am solo bi nga xamante ni mu ngi fi def muy teg suñu bët bu ñu ko nangulee incha allahu rabi premier tour lañ koy falat est que yàq bi dina xam nga kii kii kii ki kii kii wax ak kiy jëf bokkul gis nga ginaar du topp boroom wax bàyyi kii bojji nit ñi dofuñu manipulation yi moo jeex ci réew mi nit ñi yeewu nañu ku mu neex nag lu la neex mën nga wax mais le président Macky Sall li mu fi def président yi fi jaar yëpp depuis que le Sénégal est le Sénégal ba tey mandaa yi mu fi def trois présidents yi fi jaan yëpp boo cumuler seen i mandat li mu fi liggéey ñoom liggéeyuñu ko fi kon ku mel noonu sénégalais yi ñoo ko bëggal seen bopp ñoo doyul ci moom moom lenn la moo ñuy tooñ ci lenn tey mu bañ a présenté wu nekk candidat bu boobaa lu ñu dal ci Sénégal moom moo ko teg te du duñ ko mus a bàcc àdduna. justement bi sax dañoo renoncé wu ci euh, marche bi ñu waxoon ne. dañ ko fas yéene def le 3 bi suba. Mhm. yàlla dogal daal di ciy génnaat waaw xam nga xam nga xam nga opposition bi. dañu nekk dans une manipulation boo xamante ni bu dee yow da nga matul wax ngay mottali ko. ils savent qu'on a nangu mukk ñuy caax-caaxee et ñuy caax-caaxee réew mi di ko paccax-paccaxee ba ku jug ni damay marche pour profito kenn du mën a liggéeyi kenn du mën a faju kenn du mën na nekk ci lenn ñu ciy boole sàcc ak lu leen neex loolu état bi du ko nangu dañoo xam ne état bi caaxaanatuñu ci loolu te le président Macky Sall waxoon na ko li fi xewoon dootu fi xewaat moom la ñu dénk réew mi pour mu garantir les libertés kon loolu ci la état bi nekk ci la armée bi nekk ñu ngi sosal armée bi nag di wax naan am na gradé yu woote benn gradé wootewul seen yoon nekkul ci politique ils sont là pour défendre l'intérêt du pays kon liggéey la ñuy def di santaat les forces de défense et de sécurité di santaat le président Macky Sall ci téy wit bi mu téye réew mi ba réew mi actuellement am stabilité boo xamante ni képp ku nekk ci àdduna bi tey ñee nga Sénégal jërë ngeen jëf Matar Dieng euh, conseiller municipal dans la commune de Djiddah Thiaroye Kaw ok bon je m'appelle Amidou Ndaw je suis le président la commission finance à la mairie de Djiddah Thiaroye Kaw Bon, euh, je crois qu'aujourd'hui nous sommes réunis ici pour euh, effectuer cet appui, cet important appui que le maire et directeur des domaines, M. Mamoudou Gueye, voulu mettre à la disposition des populations de Pékin. Et euh, je crois que l'occasion ne pouvait être plus belle que ce mois béni de Ramadan. Et dans ce contexte mondial où toutes les économies ont été affectées, je crois qu'aujourd'hui, quand le maire et directeur des impôts, M. Mamoudou Gueye, a, à eu cette majestueuse idée, on ne peut qu'applaudir, puisqu'il vient soulager les ménages durant ce mois où tout le monde sait que toutes les familles sénégalaises sont dépensières. Donc cette occasion-là est venue à son heure. Une manière de, de, de les aider, de tirer leur épingle du jeu, mais si l'on fait que la distribution, la distribution des denrées toujours fait polémique au sein de euh, effectivement, euh, chaque fois, en pareille circonstance, on a eu à être confronté à des problèmes. Mais je crois qu'aujourd'hui, un dispositif a été mis en place dans, les dans toutes les communes du département de Pékin pour que, ce euh, pour que la distribution puisse se faire dans les meilleures conditions et pour aussi que ce don la puisse accéder aux plus nécessiteux. Mais cette distribution ne soit euh, pour qui connaît le maire Mamadou Gueye et pour qui connaît aussi le président Macky pour qui le maire Mamadou Gueye travaille au quotidien, c'est que dans cette initiative-là, il n'y a rien de politique. Tout est social et tout reste social. est Non, euh, je crois qu'on peut changer de, euh, de paradigme, comme vous voulez le, le dire. Mais pour qui connaît aussi la politique ou la vision du président Macky Sall, dont Mamoudou le reflet dans le département, c'est que d'autres leviers ont été mis en place bien avant aujourd'hui pour que, comme vous le dites, le capital humain puisse être mis au devant plutôt que les conditions humaines. Le président Macky Sall, à travers aussi ses démembrements ou ses, euh, ses représentants au niveau de la base, à préféré primer le capital humain, c'est-à-dire l'individu. Vous savez, il y a beaucoup de projets qui ont été en place. Il y de politiques aussi qui ont été au niveau de, au niveau de l'État pour que d'abord les jeunes puissent trouver de l'emploi, ceux qui, euh, qui en ont besoin puissent trouver une formation et les autres puissent avoir des financements. Des leviers existent. Donc ça veut dire que le président d'abord a pensé au capital humain. Mais quant à la condition humaine, c'est-à-dire le quotidien de tous les jours, cet important appui-là par rapport à ces inquiétudes Non, je crois que euh, ça n'a pas de rapport. Et ça ne peut pas encore avoir de rapport puisque le président Macky Sall a toujours eu à gagner les élections auxquelles il a participé. Il connaît par où passer pour gagner. Et la population, consciente que leur intérêt réside dans la réélection du président Macky Sall, sont à l'écoute du Conseil constitutionnel. Et je crois que quand le Conseil constitutionnel se, sera, euh, se serait prononcé, là vous, vous verrez euh, le rouleau compresseur de Et je crois qu'on s'est toujours gagné et continuera aussi à gagner. 2024 sera dans la poche quand le Conseil de parler. Et Mais je crois que la démocratie sénégalaise a son péché mignon. C'est-à-dire qu'on n'a pas une démocratie dont le Sénégal, euh, mérite. Cette opposition-là est une opposition tatillonne, peureuse, qui ne prime que leur intérêt au détriment de la population sénégalaise. Et je ne veux même pas parler de l'autre, mais vous avez fini de voir, de constater que ces derniers appels n'ont pas connu la réponse qu'ils espéraient. Cela, je crois que c'est un message qu'ils doivent pouvoir décortiquer. Donc aujourd'hui, le président Mixal reste plus que jamais majoritaire dans ce pays-là. Effectivement, ils sont aux avoirs. Vous tous, au quotidien. Et euh, la jeunesse, pour qui ils pensaient pouvoir avoir une main sur elle, la jeunesse la a dit que son avenir réside dans la politique, dans la vision du président Macky Sall. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Quand viendra l'heure de la politique, on fera la politique. Merci beaucoup. Je suis Lamine Soare, nekk euh, adjoint au maire fii ci Pikine Nord nekk aussi membre ci conseil ñi nga xam te ne ñu àndal le DG de domaine Mamadou Guèye euh, tey nu nous sommes ici tout d'abord dama leen naan soyez les bienvenus parce que fii yàlla dogal na ñun gox bi fii ci Pikine Nord donc dañ leen di dalal jàmm et gis ngeen aussi am na ay responsable politique yoo xam te ni dëkkee Pikine Nord ñoo ngi fi ku ci mel ni sunu coordonnatrice honorable député Salamata Correra mu ngi taxaw y a des conseils municipaux ñu ngi fi taxaw y en a d'autres et même monsieur le maire Amadou Diarra certainement il est empêché mais il devrait être là donc pour vous dire que euh, ñoo ngi leen di dalal à bras ouverts ici à Pikine Nord ci temple bi di wax ni initiative bi nga xam te ni moom la monsieur le maire Mamadou Gueye jël dafa nekk initiative bu ñëw parce que de euh, année bii nii 2023 son excellence le président Macky Sall moo ko décrété année sociale te yaakaar naa sociale nag nekkul luy doy à tout moment nit ñi dañ koy soxla rawatina nag jamono ji nga xam te ne mooy jamonoy euh, koor bi nga xam te ne sunu borom moo ne lu su def mu ful ko donc le DG des domaines Mamadou Guèye su jugee jël initiative accompagne askanu Pikine loolu dañ koy rafetlu et di ko di ko di ko ci sant di ko ci gërëm di wax ni ko aussi loolu la président Macky Sall soxla. parce que année bi moom moo ko décrété année sociale na weeru koor donc su jëlee initiative bi wut ay toni toni suukar ak ceeb fas yéene kaa jox dimbale askanu Pikine donc loolu mbégte la si ñun en tout cas ñun ñi nga xam te ne ay ndaw lañ dëkkee Pikine yëpp di ànd ak moom sama ginnaaw ba ngeen xoolee am na ay ndaw yu jugee ci dans toutes les communes du département ñu ngi fii taxaw dans toutes les commune jeunes yi nañ fa formé wu nañ pour taxaw nañ temm pour accompagner le DG des domaines Mamadou Guèye ci œuvre yu mel nii jàppale askanu Pikine parce que aussi ñun loolu rek moo ñu ñor loolu rek mooy sunu soubassement engagement politique mooy jàppale Pikine donc DG bu jugee def loolu mbégte la si ñun te dañ ko ci accompagner sans réfléchir sans arrière pensée incha allah donc loolu moo nekk sababu daje bi ñu fi daje tey. et je pense que euh, dañ fi def ay remise symbolique rek mais le gros du travail se fera dans les communes incha allah rabbi benn staff boo xam te ne dina ko teg benn équipe boo xam te ne dinañ jug pour def liggéey boobu noonu pour que nga xam ne war nañ leen mën a jàppale daanu nag dajut suuf. mais dina def lu mu mën pour que bépp Pikinois war a mën a sentir boppam ci gestion bi nga xam te ne moo koy def donc loolu moo nekkoon xëy na cadre de complément yi nga xam ne bëggoon nañ ko ci ànd dina sant di leen gërëm merci beaucoup